mi jiwrino daara ji di teg mi yóbbu ci loxam mu jotalal ñu ko ci mboolem daara yépp juróom benn daara yépp daan ne daara juróom benn judd na kon ñu ngi nuy juróom benn daara yépp di ko teg ci jiwrin ji di ñëw yéen ci seen fukkeel ak benn ci téeréb sëriñ tuuba bi di tasawul zéhar kon tey war a nekk seen fukkeel ak fukkeel ak benn ci bind ñi nga xam ne ñoo koy topp kon tey mooy fukkeel ak benn euh, leçon bi wala dars bi mbokk yi ñu ngi tolloon ci yenn jaamu yàlla yi nga xam ne nit ki da koy def nam gën a rafete waaye xamut àtte ya xamut farata ya ak sunna jotaay bi mu mujjoon a amal ñu doon wax ki nga xam ne dafa njàpp njàpp mu rafet a rafet bam noppee xamut àtte ya xamut farata ya xamut sunna ya kon ñu war a tàbbi ci sangu sangu farata waxoon naa ne ci bari nag ci téere bi loo xam ne léeg-léeg da koy wax waaye di jàngalaale nañ koy defee jotaay bi ñu mujjoon amal euh, waxoon nañ ki nga xam ne dafa jàpp njàpp mu rafet waaye nag euh, xamut àtte booba itam jàngalaale woon na la ni ñuy jàppe ci ki mënu doon a jàpp naka noonu tey ci wàllu sangu farata itam noonu la moom itam dalay wax eh, ki koy def te xamut àtte bi moom itam lan mooy ab àtteem ci loolu waaye jàngalaale la nan la ñuy sangoo farata moo tax day mata a bàyyi xel yooyu lool moo tax mu ne aw innahu walla moom ixtasala sanguna minal Janaba ci janaba wala sangu farat rek wa asana tam rafetal asuhra labga. ga wala nga wa asana turu se gën nga rafetuk lab wa sagata lolé an xasala moy mu raxas yadday ñaari loxom jiman ñet wala ñet yoon ma ko ay ba ci tikki ya ci san bobé wa xasala tam raxas allisi la nga xamné asaba jaron nako men wa xasala tam raxas al mawraja gennoy ba naaweel ay yene eh, la da sakri ci sakaram budé gor la aw farjiha wala payam fardan farata eh, ba daa feeñ na summa tawada top mu japp maratan ben-ben. waxala la mu xalil saxaro kawaram ga jamiam boole seen mu balal lan aji tooyal mu talen rum aji tambali fi saaka ca lolé min mu wari jum jumatin ca mujjëm teluk kaam bop ba lo ñeel ko di def dara ngir lor wa khasalatu mu rasan bopp ko min baxdi ma xat ginnaaw ba mu xalilee bi salaasi xarafaatin ci ñetti jangan su ma tajaanale topp mu def al ma andox ma fi raxati eh, ci tënkam lim naa bat ndeyjoor wala nga ne fi raxati yum naa ci tënku ndeyjooram waamaala te mu jàngal rax sa bopp wa waxasal te mu raxas usnoo nopp yum naa bat wa isra càmmoñ bi kasaaniku noonu la waxatam raxas alahun ka dok ga agar agar raxas bana sa ginaaw lool wasiqu wet ga alim nagat nday jor ruk mat bati bati bati omba suma isra top eh, chamon ba itam ka sa nek nek ni la bi mutlaxin ci ndoxum mutlax yam gog dana matale wax xasala dem raxas rijul tàngal yim naa ba ndeyjoor bu baax ginnaaw ba ba wa kamal tam motal bi xas biiram raxas sadr dënnam min bari xaddama ginnaaw ba mu jiitale xasal sama raxas ginnaawam kon noonu mooy sangu farata kon jàngal na la sangu farata mu wax ne eh, ki nga xam ne dafa sangu sangu farata gu rafet ci gën gaa rafetuk sangi sangiin gën nga rafet trop lab rek la sango sango farata manam li nga wara def lepp mu def ko te lolu moy dafa raxas ñaari loxom ba ja tikki jaram bi mi tambali mu raxas li nga moko ci ay sobe manam liko takkon ci sobe mu raxas ko raxas genn wayam genn way bi nga ko moy li tambale ci jumbo xam ba ci beti womam mu raxas ko kanam ak bu koy raxas nak bu tollee eh, ci sakaram fi mi touré ndox bu dee gor la fa lay yéné sangu farata bu dee na bu tollee ci peyam fi mi touré ndox fa lay yéné sangu farata bu noppé mu japp njàpp benn benn japp benn benn moy cër yi mbaaxoo woon a def ñett yoon buy jàppoo bu ci nekk benn yoon la koy raxas mu Khalil kawaram gi karaw gep mu Khalil ko tàmbalee ko ca kaangu bopp ba jëm ci jëbi mu xalil ko ba mu tooy xépp ndox mi fa mu war a dugg rek mu dugg fa euh, bu noppee mu raxas bopp bi ci ñetti tànqiin su fekkee na ñetti tànqiin yi doy na bu doyit mën na jàll ba mu doy rek euh, bu noppee mu def ci tënkul ndeyjooram li ndox jengal boppam bi mu fekk si tënk euh, mu fekk ci tënk li mu raxas nopp jor bi dañuy bañ euh, tënk li nga def ci ndox mu fekk nopp bi ndax boba man na dugg ci bir nopp bi te loolu mën naa sabab jàngoro da ngay def ci sa nday jor. ndox jengal bob bi bu ko defé euh, bob bi euh fekk ci tënk li nga raxas nopp jor bi def ko bu càmmoñ bi bu noppee nga raxas sa doq gi dokk e. gi dang koy raxas mom itam ba mu wër ba noppee nga raxas sa wetuk jor bi ni suñ borom xaja sa yaram bi noonu koy raxase ba ci sa bëti oom wetuk càmmoñ gi nga defé ko nonu mom itam ba noppee peng raxas sa jor ndeyjoor ndey jor bi li tambalé ci oom bi ba ci dojor bi nga raxas ko moom bu càmmoñ bi nga defé ko nonu ba noppee nga raxas sa biir raxas sa dënn ginnaaw nag boo jiitalee raxas sa ginnaaw ba noppi kon mbokk yi loolu mooy sangu farata kii def lii sangu na sangu farata gu mat goo xam ne moom jimmi melaw yi moom mat na waaye nag bi mu ko jëfee ba noppi walay sa yadri ci mbooleem loolu faridatan farata aw sunna wala foofu bi jëfee lii ba noppi nag xàmmeewut farata yi wala sunna yi mën naa am sax xamut sax li jëf ji mu doon def moom farata la wala sunna la moo tax ne fa innoo ne ko moom addasoo tojom a xat baqiyaa des na mis la janaaba di comme janaaba alayki moom fadriyaa na nga xam ko nangu bal li sax huwa moom yafalu dana jëf wala jëf na fi jëmee ci mboolem loolu rek isman bàkkaar ñu ne kooku bi jëfee loolu te xamut ay atteem moom ba tey mi ngi ànd ak janaba mi ngi ànd ak janaba ginnaaw def na ko waaye xamut àtte xamiwut farate xamut sunna ya ba léegi kon mi ngi dese am toj ba léegi rek te sax bu ca jullee julleem googa baaxut julleem ga julleem baaxut te sax loolu muy jëf far bàkkaar la cay mujj am bàkkaar sax la far xaasin aji mooy rabbi yi ñeel boromam wala rasul ak yonentam alayhi yàlla nekk ñoom xëer salawaat ibi ngën ji te ngay xéewli buur ba ñu ne sax kooku loolu mu doon jëf euh, bu ca jullee du baax te sax euh, loolu mu doon jëf sax da ciy am bàkkaar far te aji mooy yàlla akub yonenteem la ñu ne hëzal mu ne hëzal kalaamu ji la wax nag xadintama askanoona lil imaam aw fii ñeel imaam aw fii wa fii nekk na ci moom imaam aw moom kat kullu xaafin képp ragal yalla ñu wax ji nak kiko wax moy imam ju ñu wax al imam awfi mom nga xamne ne euh, ku ragal yalla la waxaala wax na imam awfi momu ina kul seen bepp mbir yaqon dana tabbi bi min saa ci lii mina taaxa ci top top yalla yi la seen fu deet mu jariñ imam awfi neena na top yalla yàlla nak ni la mel dula bu fekkene xamé wo farata yi ak sunna yi mo wax ne kala xaj niki aj wal jihad ak jihad wa siyam ak lu melna wor wa khir ak yu yi sax nak kal basi lu melne joxe wal itham ak lu melne lele lépp rek yep jaamu yàlla go xamne ne biñ koy jëf xamé wo farata yi ak sunna yi rek imam aw fi neena joju jëf baxut joju jëf baxut والله تعالى اعلم kon ñu teg foofu suñ baaraam ba beneen yoon seen mbokkum jullit seen mbokkum taalibe Sayxuna Jóob asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.